boo ko xoolee ci biir seetlu ko seetantal ko talaata la boo xam ne dëgg la xaw na nuroo ak yeneen talaata yi ci stade ngalandu Diouf bu Rufisque bu weesoo mandarga fitna bi nga xam ne mën nañ koy seetlu clôture bu yàqu saxaar soo xam ne ñu ngi koy gis ci gazon bi ba léegi ak i ay gradin yu xaw a yàqu yenn saa yi lu ñuy faral di gis rek lu ñuy gis ci stade ngalandu Diouf ay jeunes yu entraîné wu ànd ak ay mag ci pelouse bi fii nag ñu ngi naxarlu bu baax a baax lu xew bokk na si doomu Rufisque bi tudd Balla Gueye bu baax a baax gannaaw xale bi faatu démb ak yi blessé yu xoot yi ñu wax fitna la boo xam ne mënoon nañ ko éviter buñ ko teewloo ndax Balla Gaye di wax ne saa su ne ci buntu stade bi lay jaar nekk ci biir wotoom mesure bi ñu jël suspendre nawetaan yi lu baax la wante moom gis na ne mënoon na teel a yegg si. autorités yi xamoon nañ ko quoi parce que tous les jours ñun fii la jaar chaque jour mais bu football bi tasee à chaque fois ñun dañuy xool du ñuy rawale suñu oto man le soir jaaruma fi parce que damay bañ ñu toj sama oto parce que xamoon naa ne nii lay demee parce que football boo xam ne ñoom bi ñuy commencé à une ñu ngi commencé di xeex ba ay police di encadré kii ñu ñëw mais boobu leen war a arrêté affaire bi waruñoo xaar ba maire Mor Dam ñu koy ñu koy ñu koy arrêté festivité yi muy nawetaan muy làmb dañ ko war a arrêté dans ce pays parce que amuñu ñu bañ importance dafay yàq jeunesse bi léegi jeunesse bi ils sont devenus violents te loolu war nañ ko arrêté dès du moom rek moo wane meram bay di si itam kontanul dara moom imaam la ci quartier bi mer bu baax a baax wax ne violence boobu la ñu wane dara mënu ko dëggal. ñaaw la quoi ce n'est pas à ce qu'on attend des des jeunes. waaw wax lu ñu defar yéen da ngeen di yuuxu yuuxu yuuxu bëgg nañu stade bëgg nañu lii bëgg nañu lii nit ñi sonn ba def ba defaral la ko nga ñëw yàqaat ko encore donc man waxuma sax mais yàq stade ba pare jógati encore dem di ci boole loo xam ne nii seen yoon nekku ci. ay stade football lu ci yoonam ak saxaar yàq ay train di sànnante ay xeer tun ñun suñu fële sunu koñ bërkit dem démb xaw ma oto yi ñun mënuñu mënuñu jàll fii dañu mujjee delluwaat dellu delluwaat ba ca fële encore pour pour pour jël ay oto mais yooyu